Anyways.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 sawaay dem ca miir ba di leen yéerndu waaye kii dafa feebar de mbir mi mu ngi xewee ca l'école Ibrahima Coy nekk ca Jurbel ma ne ab raxaskatu oto lañu fa bett ci miiru toilette école bi muy yéerndu xale yi jigéen yi nekk ci douche bi <laughs> waa ji mu ngi wuyoo ci turu moom daal nee ñu dafa dugg ci école bi bënn miiru toilette yi saabu elew yi jigéen yi duggee ci biir toilette yi rek sawaay dem ca turu ba di leen yéerndu ma xanaa nag lii mooy la woykat ba waxoon mayër raxaskatu oto bi nee ñu at yi mi ngi toll ci ñaar fukki at ak lu topp waaye nag ñu li ko daane mooy am benn élève bu jigéen bu dugg ci douze école bi sawaay dem ca miir bu mu bënn di ko yërndu naka noonu élève bi daa di koy gis élève boobu nag bi mu jógee foofu rek ci la demee ca direction établissement bu école ba daa di koy yoolee waaw góore waay ma ne ci saa si la ñu saisir élément commissariat central Jurbel naka noonu ñu wàcc ci béréb bi daa di wër raxas ko to oto bi ba ne ko nuus teg ko loxo daa di koy am <laughs> ma ne kii feebaru yër la yor kasu munul ci moom dara raxas ko to oto boobu naa nag nee ñu saabu xëyee day wër duusi école yi di yër rek di yër maanaam daal moom xale bu jigéen bu dugg ci duus lay bañ a gis way takk der yi nag gannaaw bu ñu ko tegee loxo enquêteurs yi daal di koy sëkkatal oto ba wax na nee na daal moom jàngara ji mu am mooy maanaam viisam mooy xëy di xool jigéen bu sumeeku <laughs> way way kii xama di way te nee loolu li ko ko teg mooy dañu ko liggéey ay way samba sawaay nee ca jigéen soor la ko njëkk a tàmbalee ma ne ki yàgg naa yër laa wax naka noonu nag bi mu ñëwee ca jurbel gannaaw dañu ko liggéey ba mënatul bayi jëfam ju ñaaw jooju ci la ko continuer raas ko toto bay wax de ne moom daal saa xëyee li muy njëkk a def mooy wër duusi yër ndu xale yu jigéen yi ay way ay way te nag nee na saa xëyee te deful loolu du mën a def dara dara yow xëyoo julli xëyoo def li nga war a def waaye xëy di wër ay xale yu jigéen ma ne kii feebaram bi mitti na ba tax nag mujj nañ ko defeere ca tribunal grande instance bu Jurbel classé ko sous de dépôt gannaaw mbir moomu nag xew ci école bi directeuru école bi ak adjoint déglu nañ leen ca commissariat bu Jurbel ma ne li xew ci réew mi kenn xamul lu moo tax ma ne jàngoro dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax étudiant bi nag xawma lu mu doon jàng waaye bi moom makku na ndax étudiant bi dafa sàcc un million xale yi di ko wax wan birig ànd ak corom bu jigéen luy appartement ne fay ndaata tëllëx eskay étudiant bi nee ñu segu nijaayam la ne tuŋaañ daa ci retiré un million ci weeru octobre bi weesu étudiant bi nag gannaaw bi mu encaissé xaalis bi ñaari iPhone X yu cent mille la ci jënd benn pour moom benn pour corom loué appartement pour quatre jours ca cité mixta moom ak corom nekk fa di yaataa yumbe hmm, ma cey mim réew te ne ñu appartement bi mu loué journée bu nekk mu ngi doon fay trente mille francs ma ne kii de bu jàngoon ba yor réew mi ma ne loo ko jox mu këpp kees laa wax ba tax yoon mujj na cee am yoon ci kanamu yoon nag étudiant bi nangu na ne moo sacc xaalis bi waaye nag li mu ca teg rëy ndax ne li tax mu sàcc xaalis boobu dul leen lenn lu dul ngir dimbali néew di doole yi ay waay ay waay yow nga sàcc xaalis bi jënd ñaari iPhone X yu deux cent benn bi pour sa coro benn bi pour yow dem loué appartement yaak sa coro nekk fay ndaataata la ba noppi ne xaalis bi dama koo sàcc ngir dimbali néew di doole yi waaye réew mi ya neex waay mu doon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz